الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال المولى فأما الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy fitna al fitna taarifuha wa anwaa'uha wa asbaabuha wa wasaa'ilu dar'iha li ko waral mooy xam ngeen ne fitna dafa tasaaroo ci àddina bi gox yépp làmb lépp rawatina ci jullit yi fitna ci biir fitna ci biti mbooleem réewu jullit yi nekk ci kaw suuf yépp ñépp ànd nañu seetlu gis ne fitna dafa tasaaroo mbokk yi fitna suñ ko doon tekki ci làkku arab danañ fekk mën naa nekk ñaari mbir mooy nattu al ibtila wal imtihaan nattu ak examiner yenn saa yi dana ñëw nekk maana alwuquu fi lmakruh yenn saa yi mu ñëw nekk loo xam ne dafay tàbbi ci nit te nit ki du ko gërëm du ko bëgg su ko defee ku ko gis ne ko yow de fitna moo dal sa kaw yenn saa yi mu nekk kufr wala azab ak kéeféer wala mu nekk mbugal su ko defee kii loolu dal ku ko gis rek ne ko yow day musiba fitna moo wàcc ci sa kaw léeg-léeg mën naa nekk al ihraq bi naar muy safara bu lakk mun na lakk nit ki mun na lakk këram mun na lakk alalam su ko defee ñu ne ko yow day fitna moo dal sa kaw waaye moom fitna moomu dafa làmboo ay wàll yu baree baree baree bari nekk al anwaa bi ci njëkk mooy fitnatul maal fitnaay alal xam ngeen ne tey lu kenn mënta weddi moo xam kooku di weddi noon la wala soppe la mooy alal dafa fëkk nit ñi ba yoon yëpp wala wàll yëpp danañ ko def pour am alal mooy yàlla rey nit dugg ci bàkkaar rey sa bopp lu ne yo doomu aadama yaa ngi koy def ngir lan ngir am alal te li ci gën a doy waar mooy léeg-léeg ci ñenn ñooñu nga xam ne alal moo leen tere nelaw dañuy siñante ak yàlla sax pacte ne yàlla bu ma mayee alal bu ma yàlla mayee nangam wa minhum man ahada allah la in ataana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min alsalihin falamma ataahum min fadlihi baxilu bih wa tawallaw wa hum muridun léeg-léeg ci doomu aadama yooyu ci jullit yooyu bu ñu jubloo yoonu alal sax danañu siñanteeg yàlla cëy man bu ma yàlla mayee cëy bu ma yàlla defalee ñu siñanteeg yàlla pakk yu leer nañ xoola borom bi lu mu wax mu ne keroog ba leen yàlla mayee ñoom gaa yooyu le ana lan lañ fay yàlla mooy baxilu bi ñu nay lànk ngot yamuñ ci loolu waaye watawallaw wahum muridun ñu du mooy joxe ginnaaw xam ngeen na ñu ngi ciy nettali benn qissa am na ci boroom xam-xam yi ñu koy dàq waaye am na ci téere yi gën a dëgër yu saxal qissa boobu mooy qissa saalaba waaje ne woon yonent ñaanal ma cey boo ma ñaanalee ma am alal danaa def nangam def nangam yonent bi ne ko nii nga mel baax na mu ne ko déedéet xanaa gisoo li ngeen may li ngeen di seetlu ci man mooy bu ñu jullee rek du ma toog def samay ñaan damay dem sama yoon li ko waral lool la kon ñaanal ma yonent ñaanal ko ay fan alal bi di yokk jur gi mu yaroon di yokk di yokk ba da daan julli si waxtu yu juróom léegi par suba rek lay julli si mu jekki-jekki daal di toxu biir Medine génn dëkk ginnaaw Medine léegi bàyyi na julli suba ajjuma ba ajjuma lay ñëw léegi bàyyi na yooyu sax korite ak tabaski lañ koy gis azaka daal di wàcc yonent alayhi salaatu wasalaam yónnee dem leen ngeen laaj ko azaka wallahi yonent bi ki mu yónni woon da koo seen muy ñëw rek mu ne yaa way la saalaba way saalaba alkuna ndax ki yonent bi yónni woon bu mu ñëwee laaj ko ne ko yonent bee ma yónni pour nga joxe azaka mu ne est-ce que lii du xeetu impôt waaw demal ba nga ñëw sax ma xool demal nga dem wiiri demal ci yeneen dëkk yi boo jaaraatee ma jox la waaye kooku dem wër ba sonn ñëwaat mu ne ko demal dinaa ko indi indiwul mu toog ba mu neex ko mu bugg a indi yonent bi ne ko duma ko jël yonent bi génn àdduna Abubakar toog mu gàddu azaka yi bëgg a indi aboubacar ne ko lu yonent bi jëlul woon du ma ko jël yonent bi génn àdduna um aboubacar génn àdduna omar toog mu bëgg a indi omar ne ko lu yonent jëlul woon aboubacar jëlul woon man omar du ma ko jël kon gis ngeen fitna alal tey daanaka xel dalatul doomu aadama yi nu ñu def pour al am alal rek ñu ngi ci xamuñu alal bi dafa dagan xamuñu alal bi dafa araam te jàng nañ yonent bi ne lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta tusal an arbaa xisaal bokk na ci wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa alal ji foo ko jële ak foo ko dugal waaye tey fitna boobu këpp na sunu kaw ba kenn du bàyyi xel dañ naan alal ji noo ko amee rek baax na ñaareel bi mbokk yi ci fitna yooyu mooy fitnatul jaa fitnaay daraja daraja xoolal tey daraja di nga gis lenn ci ay jullit daraja ji ñuy bëgg dana leen jaral lu nekk dana leen jaral taal fitna ci dëkk bi ngir seen daraja dana leen taral jaral taal fitna ci mbooloo mi ngir seen daraja dana leen jaral taal fitna ci jàkka ji ngir seen seen mbo seen daraja boo demee ci politiciens yi nag boo demee ci këru diine yi nag foofu moom waxal ba sonn mbokk yi daraja fitna la day alak nit yonent alayhi salaatu wassalaam yàlla ba mu koy joxoñ baaraam pour bu mu jaay daraja da ko ne wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha eh yow yonent li ma lay dénk daal mooy gaa yële ngay gis seen yërey gàtt gaa yële ngële ngay gis ñu xiif gaa yële ngay gis ñu sonn nekk ay miskin nekk jullit soo bëggee am jàmm demal nga ànd ak ñoom léeg-léeg benn waay yàlla dina changer situation bi rek nga gis mu commencé hatta jàkk sax dootu ko dem ndax daraja jàkk waaye kañ nga koy jàkk ah seen jàkk ji de léegi moom parce que jàpp nga ne ay miskin ñoo nekk jàkk ji yow borom daraja nga waratoo dem jàkka ixwatal iman daraja day alak nit daraja day sànq doomu aadama daraja day tax nga réer day tax nga alku day tax doo kenn dootul wax nga dégg ndax chaque jour da ngay jàpp ne nit ñi yow yaa leen war a féete kaw loolu fitna la ñetteelu fitna mooy fitnatu zawj fitna soxna borom bi moo ñu wax ci Qur'an inna min azwajikum wa awlaadikum borom bi lum ci wax mu ne aduwal lakum fahzaruhum lenn gis nga lenn la waxul ñëpp nag am na ci soxna yu baax ndeysaan saxaaba yi ñooy nettali ne nañ seen jamono bu góor daan génn këram di liggéeyi soxnaam day koy gunge ba ci buntu kër gi ne ko ittaqillaha fiina ragalal yàlla ci ñun ragalal yàlla ci ñun soo demee uti lépp lu dagan indil lu araam bul indi ndax ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara kon soxna yooyu ñu baax lañ waaye xoolal tey soxna tey léeg-léeg sax ñu noddu salaatu nga bëgg a jóg soxna si daal lay taxloo ko nga daal di tëddaat fitna ngoog xoolal ci ñun tey lu ñu sunu soxna yi teg ci ay fitna ñàkk diine def yaramu neen tambaambalu ci mbedd yi fàtte wa qarna fi buyutikunna toog leen seen biir kër yi waaye fitna yàlla nee na lenn ci seeni soxna ak seeni doom yàlla nee na seeni noon lañ de lu tax ndax dañuy dox seen digganteeg seen borom looloo tax yonent yàlla aadama bi mu nekkee ci sukuraat ndeysaan dafa yónni doom yi ne leen dem leen ngeen utal ma garab doom yi di dox ci àll bi ñu gis malaaka yi ñoom xamuñu ne ñii ay malaaka lañ waaye malaaka yi xam na ñii ay doomu aadama lañ malaaka yi daal di laaj doomi aadama yi ne ana seen bàyyi mi ngi kër ga lu ko jot dafa feebar lu ngeen koy utal garab ñu ne kaay leen ñu ànd dem kër ga ñu ànd ak doomi aadama yi bi leen aadama séenee awa seen leen ñuy ñëw awa daa di daw laqatu ci ginnaaw aadama aadama yuuxu ko ne ko yaa hawa xalli bayni wa bayna malaikati rabbi génnal sama digganteeg samay malaaka borom dafa fàttaliku la ca woon asamaan démb ba mu doxee digganteem ak garab ga ba lekk yàlla daal leen di dàq ñoom ñaar moo tax tey bi mu séenee malaaka yi awa bëgg a ñëw dox digganteem ak malaaka yi mun a ko génnal sama diggante malaaka yi boroom ak sama digganteeg yow génnal génnal bul ci dugg malaaka yi ci lañ jege aadama daal di koy rey bi mu faatoo ñu woo doomam yi wan leen nuñ koy préparé nuñ koy sangee nuñ koy suulee nuñ koy dencee bi ñu paree ñu gestu doomu aadama yi ne leen lii mooy seen sunna baay aadama mu ngi nii ku dee nii lañ koy def mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu wax ne sunu soxna yi ak sunuy doom lenn ci ñoom sunuy noon lañ ñeenteelu fitna mooy fitnatul awlaad fitnaay doom yenente alayhi salaatu wasalaam nee na alwaladu majbana maxbala mahzana alwaladu doom yonent bi nee na ragalukaay la doom day tax yenn saa yi dootoo ànd ak sang-froid dootoo ànd ak tranquillité misaal nekkal sa kër rek nga jékki-jékki dégg benn bruit bu fort ci mbedd mi te yaa ngi bàyyi woon sa doom ci mbedd mi nooy def da ngay jóg wala da ngay continuer toog da ngay daw xooli mbedd mi lu fa xew parce que sa doom moo fa nekk su xëyee nga dégg problème am na rawatina fa mu jëm foofu la problème bi nekk sa xel dootul dal moo tax yonent bi ne alwaladu majbana waaye maxbala doom nayukaay la soo yoroon téeméeri dërëm kese sa poos nga dégg ñuy wax ñuy wax dara wala joxe dara wala saraxe wala maye loolu rek nga yor yaa ngi xalaat ah téeméer bi day naa ko bàyyi mu koy bëgg kër ga gars yi daal di koy reere tey parce que tey moo nekk sama poos gis nga maxbala waaye mahzana doom naqarukaay la daanaka am na ñoo xam ne tey li leen teg àdduna yépp problème mooy seeni doom ñoo leen indil problème ñaata yéegi ngay dégg ci rajo bi kër goo xam ne dañuy jàppante guddeeg bëccëg ba fitna bay faat seeni wayjur ci ñoom lay bàyyeekoo ay xale yoo xam ne seeni ndey wala seeni baay dañ leen di wax diw moo def dara rek seen tension moonte ñu daal di dee moo tax yonent bi ne doom tey fu ñu toll yonent bi nee na doom naqarukaay la mahzana da nga daf lay jox problème waaye doom mën na laa yóbbu safara loo tax jàngeen ci suratu kahfi borom bi ne fa amma alxulaam fa kaana abawaahu muminayni xale ba day ndeem ak baayam ñaar ñu gëmoon yàlla lañ waaye xam nañ ne xale bi bu màggee rek daf leen di dugal ci kufr moo tax yàlla jox ndigal xudar na ko rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dayus du dugg aljanna sahaaba yi ne ko kan la mu ne alladi yarda alxubusu fi ahli ki nga xam ne waa këram bu ñuy def lu bon mu toog naan ay xale lañ bu ñu màggee mu dañ wala koo xam ne mooy dem indi lu bon li saxal ko ci kër gi wala kër gi bu ñuy def lu bon du yëngatu borom kër googu ndax bëgg lu neex njabootam yonent bi nee na borom kër googu du dugg aljanna mbokk yi juróomeel ci fitna yi mooy fitnatul ittihaad tajaawuzul hadd wa tuxyaan wa zulm tooñ fitna boo xam ne day yóbbu nit dootul xam fu mu war a yem lu tax parce que am na doole wala am na kattan wala am na nangam wala am na nangam wala am na yenn daraja yi su ko defee mbewte daal doo daal di koy dugg réer daal di koy dugg tooñ daal di koy dugg ku mu neex tooñ la lu ko neex def lu tax parce que am na doole borom baa ngi ñuy nettali ci Qur'an qutila ashaabul uxduud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود buur boobu amoon na doole jàpp ne kenn waru koo bàyyi di jaamu yàlla ba tax mu gas ay kanaal def ci safara ba mu takk mu dajalee di nit ñi di leen ci lakk lu waral loolu mooy fitna moo ko dal fitnatul ittihaad tajaawuzul hadd wa tugyaan wa zulm léeg-léeg nit am doole mbokk yi doole jooju réeral ko léeg-léeg nit am kattan kattan boobu alak ko léeg-léeg nit am alal alal jooju alak ko léeg-léeg nit am xam-xam xam-xam boobu alak ko parce que day jàpp ne maa fi raw maa fi mën nang lu ma neex def loolu su fa doomu aadama eggee na xam ne fitna dal na ko musiba naarullaay mu ngi ci kawam juróom benneel ci fitna yi mooy fitnatu dajjal xam ngeen dajjal wa hiya azamu fitnati lmahya ñii dund ci kaw suuf fii nu toll ba dina bi jeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñi nekk ci kaw suuf fitna bu toll ne dajjal fekku leen ci kaw suuf moom yonent sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko nettali nee na fitna yi dund li ci gën a rëy mooy fitna dajjal moom yonent bi mu ne innahu lam takun fitna fi l ard munzu zara allahu zurriyata aadam azamu min fitnati dajjal ibadallah fasbutu fa inni sa aqussuhu lakum fa inni sa asifuhu lakum lam yasifuha iyahu nabiyun qabli yonent bi alayhi salatu wasalaam bi muy nettali sahaaba yi dajjal mu leen koy wax ba caag mu ne sax leen déglu leen ma ma wax leen man mi maa leen koy nettali maa leen koy melal maa leen koy firil ba mu leer ci yéen nañ benn yonent bu yàlla ma yónni musul wax ci mbirum dajjal ku dul man yonent sallallahu alayhi wa sallam maa leen koy firil ba mu leer nañ mbokk yi fitna bi gën a rëy ci kaw suuf bu nar a fekk jullit yi ci kaw suuf doomu aadama yi mooy dajjal ixwatal iman juróom ñaareelu fitna mooy fitnatul axbaar fitnaay xabaar yi xoola xabaar yi tey loolu tax borom bi bi neeñu wa in jaakum fasiqum bi naba in fatabayyanu da leen leerlu jullit yi nañu bàyyi dégg benn information rek daal di koy gëm di commencé di ko tasaare commencé di ci wax yàq seeni jot seeni waxtu xoolal tey xabaar yi nu mu tasaaree jullit yi ni mu tase àdduna bi ni mu yàqe kër yi ni mu yàqe liggéeykaay yi ni mu yàqe ànd ndax xabaar yoo xam ne teguwul fenn yàlla subhaanahu wa taala xamaloon nañ ñu démb bépp xabaar boo mën a jot yow jullit balaa nga cee wax wala nga ciy xuus leerlul xabaar bi ixwata al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله fitna yooyu ñu doon wax mbokk yi dafa am ay asbaab dafa am ay sabab li tax fitna yooyu di ñëw di wàcc ci kaw nit ñi di dal ci kaw jullit yi di dugg ci kër yi bi ci njëkk mooy adamul iltizam bi mafahim wa qiyam wa qawaidi diin bi ci njëkk li tax fitna di dal jullit yi mooy ñàkk a sàmmonte ñàkk a respecté ñàkk a comprendre ñàkk a xam valeur ñàkk a xam keno yi nga xam ne moo tee diine jullit yi xamuñu valeuru diine xamuñu amuñu benn compréhension boo xam ne tey xam li xew ci adduna bi mën nañ cee génn xoolal événement France bi benn boroom xam-xam daf ci indi fukki tomb yoo xam ne war nañ ko analyser xool ko est-ce que lii du ay plan pour xeex diine France fukk yoo xam ne kenn mënu ko weddi fukk waaye ñun ñeneen ñëpp dañuy tërëral rek di dem jàpp nañ ne ak yeneen xew-xew tey yuy xew ci àdduna dañuy jékki-jékki rek hatta sax ba ci borom xam-xam yoo xam ne ay nguur ñoo leen di ngemb di leen këpp ci kaw jullit yi yooyu yëpp jullit yi du ñu leerlu dañuy dem rek di tañax tañax yi di dugg ci yu leen neex fekk loolu ab jullit du ko def jullit ñi war nañoo dégg xam keno yi ñu sàmmonte ak li nga xam ne sunu diine loolu lay wax loolu bokk na ci sabab yi ñàkk iltizaam bi mafahim wa qiyam wa qawaidu diin ñaareel bi ci tegu mooy aljahlu bi diin bokk na ci fitna yi dal jullit yi tey mooy ñàkk jàng diine réere diine xool leen Sénégal ku jóg am ay taalibe wallahi bu benn muus sol woon léegi ñëw ci stade bi ñu ne kéemtaan la wallahi yàllaa ko yónni dëgg la gars yi commencé su jot fan lañ jëm fuñ jëm ci ay woote yu tasaaroo ku xëy rek sol sa garaamu bu am sikim sol kaala rek ñu ne yàllaa ko yónni wala borom xam-xam la wala cheikh la loolu ñàkk a jàng diine la rawatina nag xoolal ab jullit bu dégg benn waay ne man alquran xàmmewuma ci lu dul waaw lu dul loolu li niroog neuf ba pare nga am ay taalibe waaw sëriñ mu xamul alquran kooku ci lan la war a yóbbu nit ñi ku jàngul diine borom xam-xam boo xam ne nee na man borom xam-xam laa kilifa diine laa waaye alquran de xàmmewuma ci dara lu lii di nuroog neuf loolu di nuroog neuf laa ci xam kooku léegi su su wootee fan la jullit yooyu di ko wuy jëm loolu moo tax aljahlu bi diin benn borom xam-xam dafa bind benn téere téere bi tasaaroo na ñu bëri am ñu koy critiquer ndax unwaan bi mu ko jox mooy lan al islam bayna naarayni quwatu aadaihi wa jahlu abnaa'i islam mi ngi ci ñaari danger ñu ne ko danger bu njëkk bi lan la mu ne quwatu aadaihi noon yu am doole ñaareel bi mu ne jahlu abnaa'ihi non islam ñi gëm l'islam dañoo réere l'islam xamuñu lan mooy l'islam parce que jànguñu diine sahaaba yi démb ku dugg ci l'islam da ngay jàngi tey ñun ku dugg da ngay commencé dem jàkk te al madaris qabla al masajid balaa ngay dem jàkk ngay jàng soo demee ci jàkka jàng nga xam li ngay def waaye tëb rek commencé kaalaw yor kurus commencé da ngay yàq rek ixwaan yi kon foog ñu jàng ñàkk a jàng mooy fitna bi gën a rëy tey bi dal jullit yi kon foog ñu xam sunu diine alquran aaya bi ci njëkk a wàcc lu mu wax iqra lam yaqul qatil wa lam yaqul saytir wa lam yaqul igtanim wa innama qaala iqra te iqra fiilu la dafay dafay jóge fii dem fii dem fii min al maadi ila al mudaari ila al amr kon la budda ñu jàng fak ñu jàng delluwaat ci téere yi jullit bu bëggee xam diineem day dem jàngi ixwatal iman bokk na ci yooyu fitna li ko waral mooy al bidaa fi diin wal fujur mooy sos yi ñuy sos ci diine ji ak kàccoore yi ñu ciy dugal xoolal rek guddeeg bëccëg amul bis booy xëy guddi lu dul di nga dégg ay sabar yu ñuy tëgg boo demee nga fekk ay góor ak i jigéen lañ dañuy fanaan di fecc ba bët set loolu ban diine la foo xool dëkk bi gis ay caaxaan kese guddi gu nekk ay façon façon façon yuuxu ba bët set loolu est-ce que hadis la est-ce que diine yonent yàlla Muhammad la fan lañ jàng yonent bi mu ne bu guddee dee leen yuuxu bu bët set ñenn ñi ne dañuy woy yonent fan lañ jàng ci alquran wala ci sunna yonent yonent bi ne na ngeen ma woy yonent bi waxul woy leen ma amul fenn fuñ ko wax ñeenteel mbokk yi ci sabab yooyu nga xam ne moo tax fitna wàcc mooy tarkul amru bil maaruf wa nahyi anil munkar gis nga ñun ñëpp bañ demee ba maandu koo wax mu ne noo yëfu jàmbur la affaire am la vie privée am la moom moom liberté am la kenn ci ñun même sa biir kër da ngay gis tojaange ñu ne doo wax nga ne damay bañ fitna nga noppi bi ñu bàyyee digle lu baax tere lu bon ci biir kër yi ci mbedd yi ci gox yi ci oto yi ci place yi ku nekk rek loo gis nga noppi ci la musiba ta wàcc suñu kaw yonente alayhi salaatu wasalaam lan la ñu wax man raa minkum munkaran mu ne fal yugayiru bi yadihi fa in lam yastati mu ne fa bi lisaanihi fa in lam yastati mu ne fa bi qalbihi wa zalika adaful iman ñun nag tomb bu mujj boobu fa lañ nekk léegi alquran lu mu ñu waxoon digle leen lu baax tere leen lu bon su ngeen ko deful musiba wàcc seen kaw kon mbokk julit yi juróomeel ci li tax fitna am mooy fitna bi nga xam ne alwaqia bayna al umma fitna bi wàcc tey ci diggante jullit yi ñi gise nii ñi gise nii lan lañ leen jural ñee dañuy dem jël ay arme rey ñii wala ñi jël ay arme rey ñee tey boo xoolee umma al islamiya démb américains yi ñoo doon ngemb ànd ak ñeneen ak ñeneen ñu ñëw dal ci jullit di rey xoolal waaye noon yi fexe nañ tey ba jaxase jullit yi ñooy xeex démb ci guddi Égypte li fa dee ëpp na ñaari junni nit Syrie ah ay jàkka yu ñu lakk ay marché yu ñu bombardé te xamuñu ne perte bi laysa min sunna wala wala chia wala wala wala suufi wala perte bi fan la islam kese la parce que kii ne man chia la lan la jullit kii ne man sunna lan la jullit kii ne suufi lan la jullit kon kan mooy perte mooy jullit bi fexe nañ ba léegi ay arme la ñuy régler suñuy problème reyante xoolal jàkka nga fekk jàkka ñu ci nekk nga taal jàkka ji ñëpp dee loolu loolu musiba la mbokk yi loolu fitna fitna moo bi mu duggee ci umma bi ba tey ila an yarisa allah arda wa man alayha dootul jeex parce que yonente ne woon ci mandar axiri zaman la bokk ixwatal iman ginnaaw bañ gisee fitna mooy lan ñu xam sabab yi lan moo koy indi mbokk yi li koy dindee ngi nii garab gaa ngi nii bi ci njëkk mooy alwixda wa nabzu tafarruq mooy bennoo dindi tàqalikoo ak sunu diggante bennoo il faut ñu nekk benn man ak yow dañoo gëm yàlla bokk yonent bokk quraan bokk kaaba fu ñuy jublu bokk waxtu yi bokk weer wi bokk lépp lan moo ñu war a tàqale da ngay gis ñaar ñu bokk jàkk lan mooy seen différence mooy jalsatul istirah ñoo am problème lan mooy seen problème imam bi benn yoon lay wax asalaamaaleykum lan mooy seen problème kii li qaam benn yoon lay wax qad qaamati salaa lan mooy fu jëm ñu bëgg a noonoo kii day dem ba caag mu ne kii yéeféer la soo ko dajeeg moom sax dootoo ko nuyu nga gis koo xam ne day gis koo xam ne du julli du woor bu ko gisee jox ko ñaari loxo su dajeeg kuy julli bokk ak moom jàkka ji mu mu fas kanamam fu jëm nañ nekk benn wa atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu al muslim axul muslim in wa anna hadihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum faabudun ñaareel mbokk yi al ilmu shar'i foog ñu jàng foog ñu ut xam-xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na innahu saya sayasibu ummati fi axiri zaman bala'un shadid la yanju minhu illa rajulun arafa diin allah fajahada alayhi bi lisanihi wa qalbihi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na suñ demee ba axiru zaman addina di waaj a jeex mu ne musiba bu rëy dana wàcc waaye mu ne kenn du ci mucc lu dul waaju xam diine yàlla kenn du ci mucc lu dul ko xam diine mooy tey ci li ñu toll ndax nan nga mën a tàqalee wootekat yi nan nga mën a tàqalee ñii naan man diine laay liggéeyal ñan nga mën a tàqalee ñii ne ci diine laay wax foog nga jàng boo jàngul ñu daan lay jël léegi ne la mun ngaa bàyyi julli di nga dem àjjana julli amul problème julli du dara xol rek a takk xol na sa xol bi set rek su ko defee nga bàyyi julli nga ñëw kee ñu ne la bàyyil woor nga dem fee ñu ne màkka jar ca dem fii moom ku fi ñëw rek lépp ndeysaan démb la ñu yónnee benn vidéo boo xam ne gars yi dañuy tawaaf benn bàmmeel di tawaaf bàmmeel bi dañ koo tabax comme ni ñuy tabaxee kaaba gi dafa am ñeenti koñ di ko tawaaf laa wax di daw comme ni ñuy defee safa ni ñuy defee tawaaful kaaba xoolal ñooñu buñ dee fuñ jëm kuy tawaaf bàmmeel rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi nnaar yonent bi nee na bëri na bàmmeel bu ñuy wër fekk borom bàmmeel bi mu ngi safara fan lañ jëm bàmmeel kenn du ko wër kenn du ko tawaaf yonent bi daf ko tere sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na musiba bu rëy dana am lan moo ci génne nit ñi mu ne laa yanju minhu illa rajulun arafa diin allah kenn du ci mucc lu dul waajoo xam ne xam na diine yàlla fa jahada alayhi bi mu xamee diine mu xeex ci bi lisaanihi wa qalbihi ci làmmiñam ak xolam mbokk yi juróomeel ci lu ñuy génn ci fitna mooy as-sabr mooy foog ñu muñ yonente alayhi salaatu wasalaam nee na innahu lam yabqa min addunya illa balaan wa fitan waaw yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam na ngeen yëg ne adduna dara desatu ci lu dul balaa musiba rek ak fitna ñaar yooyu moo fi des mu ne lan mu ne fa iddu lil balaa'i sabran kon waajal leen musiba saa yi wàccee seen kaw ngeen mën a muñ nañ mën a muñ bàyyi jàmbat yi yonente alayhi salaatu wasalaam danaan muñ même lu ko munta dal boo xëyee ne ko yonent bi na nga def mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal su fekkee am na xéewal boo ko nee na nga def mu ne alhamdulillahi allazi bi nicmatihi tatimmu salihat juróom benneel mooy taazimu xormatul muslim dimaihim wa maalihim nañu nañu nañu yëg ne jullit bi awma droit di ko suufeel awma droit tuur deretam awma droit jël alalam jullit bi na jox mbokkum jullitam xorma mais loolu amatul xorma moo amatul sunu diggante xorma kenn ormaalatul kenn ba ci diggante mag ñeeg ndaw ñi sax da ngay gis ku jox benn pa loxo gësam loxo bi na ko alal góor gi gësam loxo bi li góor gi doon wax kenn du nuyu mag benn loxo di gësam loxoom loolu du teggin mais ñàkk a orma la parce que kenn amatul orma nit ñi foog ñu am orma yonente alayhi salaatu wasalaam daf ñu jàngal diine ndaw dafa war a wekk mag mag dafa war a yërëm xale yonent bi loolu la jàngale waaye tey lan mooy sunu dund mooy ku nekk rek yëkkati mbagg bonde di cëppi cëppi dafa ne yowmal qiyaam bu doon taxaw soo ne yàlla arrêté suuf si yàlla arrêté suuf si ixwatal iman yàlla tabaraka wa taala nee na wa man qatala muminan mutaammidan fa jazahu jahannam xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa adda lahu adaban azima yàlla nee na ku rey jullit ku rey ku gëm yàlla fekk yaa ko tey yàlla nee na yow yàlla rëbb na la adduna ak alaxira yow subhanahu wa taala sunu borom nee na yàlla mere na la moom yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba mu la mere yàlla rëbb na la yàlla waajal na la safara ëllëg yowm alqiyama kon deretu jullit na ñoŋ ci ñun xormaay jullit na ñoŋ ci ñun alalam deretam bul tuur deretam bul jël alalam juróom-ñaareel mbokk yi mooy itizal al fitn wa adamul xawdi fiha su fitna amatee kenn ku nekk ci ñun berul bul dugg ci fitna bi safara saa ngi tàkk bul ci sotti essence bul ci sotti pétrole dañu bëgg fitna bi fay kon kenn ci ñun amul droit di ko xam waaye xoolal tey kenn ci ñun day dégg fitna rek tàmbali di ko yokk di ko yokk di ko yokk ba mu mujj ëpp ñëpp loxo boroom xam-xam yi nee nañ ci jamono yi fitna na ñëpp sori fitna bi bu ko kenn jege su ko ñëpp soree wala ñëpp jël ndox sotti ci wala suuf sotti ci mu daal di fay waaye bu fekkente ne ku ñëw rek daal ci sànni benn guttu essence dëkk bi yëpp dana mujj di tàkk ixwaan yi ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ñu ñaan fitna bi nga xam ne moom la jullit yi nekkee yàlla nañ ko yàlla dindil ci biir ak ci biti allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinaabi allahumma ya musabbitu alqulub thabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك إلى, إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله